Rabbi israh li sadri wa yassir li amri hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al qalami rasidan wa mursidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi ni bàyyi xel fu mën a nekk ci àdduna bi moo xam ñu ci tey bàyyi xel seen seen bu am solo bi muy le grand secret à wolof ñu ngi leen di waxte asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bi ñu santatee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo ngi ndokkeel ak jaajëfal mboole mbokk yi ne bàyyi xel ak fon mën a ne mbokk yi tey dañoo fas yéene indi ak yéen ci benn secret boo xam ne secret bu doy waar la waaye ah, nak muy secret bo xamne bu yéme la lol ci wala xex ak bëgg toroxal nit ci lu gaaw lu ci gaaw gaaw la ana bari ñuy gëna sori wala ñu gëna a yaatal yow mi gën ci paas bi bo abonné wut ci chaîne bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te seen vidéo bi partager ko mu gëna yaatal yaatu ndax mboolem vidéo yi ne ko ci chaîne bi yëpp ay vidéo njëriñ ya, kese la te njariñ moom nu gën a yaatoo rek ci la gënee di la wax yow mi nga xam ne da nga bëgg def lu seet wala nga bëgg a def lu listixaar dañuy def seet à distance dañuy def tamit listixaar à distance moo xam ko nga bëgg ku la defal seetu ramlu dañ koy def wala nga bëgg ku la defal listixaar à distance dañ koy def benn ci ñaari boo ci bëgg rek mën nga ñu contacter ci numéro yi muy 77 684 28 28 inchallah heure bii na defal li xar gu leer naññ bu dee mbokk yi nga ne dañuy tewoo garab yi yi mus yi disponible na jamono ji ñuy wax ak rek allah rabbi kon mbokk yi secret bii ñu leen indil tey secret xeex la di secret bëgg lu gaaw xëy na nag jëmmi secret bi de su ko joxe lépp loo xam ne lu am lor la fas yéene mun kaa joxe ci fii nag dinañ ko leeral nit ndax lépp njariñ la te njariñ yi lenn lu si nekk am na ñu ko yittewoo képp ku ko yittewoo nag boo ñu contacté ñu wax la sart yi la koy joxe waaye li benn xaatim la musallas boo xam ne ñu ngi ko tëgg kulama aw xadoo naaran lil xarbi atfa allah ak xul naa yaa naari koon yi يدوغ الكبير إنا لله وإنا إليه راجعون كلما أخذوا نارا للحرب أطفأها الله حينا ديسو أقل وإلي دال سكر لباخ نكيب كوكام موم من نسك كاران كان دولو توان بباري دومالا موم سكر بي بوكامي كيب كوكو يتوى من غني كونتاكت دي وانا خينا ديسو دي غنى قدل داني تنك فوفرك دي وانا يومي سيطان بو أبني قد كسين بي